Cheikh Diop ñu bu baax bàyyi nga am jàmm. waaw soxna moom jaar maa ngi lay bu wér di kontaan ci yow bu baax a baax. ah alhamdulilah euh, tey nag ñu amoon mbégte lool di dalal fii ci suñu plateau bi di Tektal TV. Mhm. Euh, bëggoon nag waxtaan ak yow ci thème bu am solo lool lool lool. Mhm. thème xam ne nag c'est d'actualité. Mhm. ñu bëggoon na waxtaan ci vu que ñu ngi ci 7 mars. ñuy mu ñuy fàttali dak boobu li ñu fàttali talaatay ndeer li hmm. ñu fàttali à quel point ñun suñ jigéenu Sénégal dañoo mës a brave dañoo mës a hmm. euh, ñu bëggoon nga wax ñu ñu sa xalaat ci euh, jigéen ñi tey en général hmm. les filles euh, mën nañu wax de mœurs légères en quelque sorte lan nga leen mën a wax tey par rapport ak talaatay ndeer nga xam ne exemple la waaw jërëjëf soxna Mame ñu wax ne bu weesoo cadre bu jigéen sax fii Sénégal moom lépp lu bokkut ak lu mën di doon lu mbërum làmb ak ku fecckat ak ku fookat cër bi nga joxoon joxatuñ ko bu njëkk boo nee nit ki ni muy tiite amatul boo nee policier noonu kilifa diine fan ko doon teg amatul euh, lu mën di doon nag ku ne perte sa valeur ba mu des mbërum làmb ak fecckat wala fokkal kon nag dëkk bi dafa doon dëkk boo xam ne tur yi ñu nekk boo lay kilifa diine fan ko doon teg amatul euh, lu mu mën doon ku ne perte nga sa wala fokkal kon nag dëkk bi dafa doon dëkk boo xam ne que bii ñu nekk léegi caaxaan dafa dominer am doole boobu boo ko deful ñu ne seer di wax ne xale yu jigéen yu bëri tamit ci fosco yu école yeeg yu mel noonu dinañ ci faral di am problème parce que problème bi ñu am mooy dañuy gis bésu génn la bésu fête la ku ne mel nenn léegi ñoom euh, à chaque fois noonu melokaan boobu ñuy mel du exemple mais jour boobu ku ko melul dafay mel ne ngaaka nga seer na léegi nag complexe day jéem a wan ne du ngaaka du seer di jéem a imposé loo xam moom du moom bis bu duggee ci loolu nag ci lay am problème parce que ki xas doon bandi moom bandi jig na ko mais yow mi dul bandi boo defee band yëfu band rek conséquence yi faaw nga gis ko moo tax mu wax ne lu bon bu ko ñëpp doo bu ko ñëpp doon def du ko tax a baax lu baax bu ko ñëpp bàyyi woon du ko tax a bon euh, nit nag nit ñi léegi dañuy jël sa jikko bu baax teg ko fële ba pare xañ la ko te loolu pertement la nag da yor sa jikko bu baax boole ci muñ xam fan nga jëm parce que lii am léegi ci say jigéen ñi da ngay seen ko xam ne seen vie yëpp ñu def ko ci réseau sociaux yi Euh, weerante yaa ngi wax ni lii ci gel ba wax na ko lee far ba wax na ko lii kii may na ko lii kii may na ko iPhone kii yu mel ne ak yaay yu mel ne ñoom léegi euh, yow da nga leen yërëm ci boo bokkee famille bu baax ba naan ñii na leen siggee xool nit yi fekk famille ban bokk loolu succès def ko da nga naan temps yi da la dëkk bi coow bu ko defee complexe yu mel ne ñoom da leen ñee yaakaar ne ñu ngi kii fekk xamuñu ne ñoom seen sët ba judd ba juddoogul tooñ nañ ëllëg pour mu werante am dëgg day jafe parce que lu mu nar a wax bu ne ko sa maam fi defoon nangam am na problème te léegi jamono bu njëkk bi léegi ay mag ñooy fekkee mag yooyu buñ dee lu bari day disparaître mais léegi loo def lu mu tuuti tuuti ci lu négatif bu internet baa ngi fi heure bu nit xoolee fekkaat ko fi. waaw waaw ci ci internet boobu sax. Hmm. xam nga ñoo laaj léegi ndax du ci yar wi mais. Hmm. mën nañu mën nañu xool ni que. am na si ñoo xam ne dañuy def ay ay yenn jëf yoo xam ne mooy loolu te euh, seen seen i waajur sax duñ ko yëg. waaw xam nga waaw xam nga foofu problème bi fi nekk mooy bu dee nit ki xam na ci internet loo xam ne waajuram xamu ko ci mi ngi toog ak waajuram ci salle nee nañ ko vingt et une heures bul génn mais deux heures mi ngi France kooku waajur bi day am problème te waajur tam mënul jàng ba matal lépp ki nga xam ne que bu génnee. am na beneen chambre wala appartement bu muy cotiser di ko fay ak i copinam di fa recevoir di fa def la bu ñëwee ci kër gi doon seer kii yaakaar na doomam li mu koy tere yëpp ñuy réussir mission boobu fekk kii mën na jaay dëkk bi ba jaayal te xamul bu ko defee dix ans soo ko fay lu ci nit man problème bi mooy li ma wax mooy dëkk bi léegi euh, def yenn yi comme par exemple jigéen nga jot ci góor du ndam góor nga jot ci jigéen du ndam mais nga mucc mooy moo tax euh, bu ko ñëpp doon def bu mu tax nga complexe euh, ñemeel ci li ngay def te jàpp ne léegi def lu baax dafa ànd ak ay risque parce que dinañ la jiñ seer dinañ la jiñ ku bon dinañ jiñ euh, parce que kullu wolof da koy wax kullu kuy aj du bëgg mukk kuy tëj kuy tëj da koy dérange léegi kii def lu juba dina képp def lu jub rek yaa ngi koy feeñal dèjà ñiy def lu bon moo tax dañuy bëgg am morom ba bugg ci ñoom sax dañ lay waxal lu bon keel la dafa soof gëmul dara nangam nangam di nga dégg ñu ne ibaadu bii ci internet boo ko demee di nga gis ibaadu nangam ñu titre ko di nga gis ku sol nangam ñu titre bu ne am na fi mais li ëpp solo daal mooy àddina bi comme lëj na te mënoo ko lijjanti bul bokk ci li ko lëj na waaw kay kon ñoo ko déggandoo te te ñu fàttaliku tamit ne que. Hmm. ñun fii Sénégal dañoo yàgg am ay mag yu baax. Hmm. ñoo xam ne ay royukaay hmm. képp kuy jigéen war mën a roy ci ci ñoom. mën nañoo wax ci Soxna Jaara. Soxna Jaara waaw ñuy jural ku tedd xam ne ko kuy kuy jigéen rek war nga roy ci moom. nga xam ne que fii aussi jigéenu Sénégal dañoo mës dañoo bu bu njëkk ba jigéenu Sénégal ñun bu ba ba colon yi jigéen ñu tubaab yi di di. di réclamer seen indépendance naan dañoo bëgg voté loolu ñun fii jigéen ñi ñu ngi doon diriger. Hmm. ñu ngi doon ñu ngi doon imposer seen bopp. ñu xam ne que euh, jigéen euh, yàlla moo ko njëkk a suturaal sax hmm. Hmm. kon ñu xam suñu valeur te fàttaliku ne que fàttaliku ñun suñu ay cosaan. te xam ne xam xam jigéen dafa war a xam valeur xam ne que. Euh, muy muy muy jur ku nekk. muy jur ku nekk waaw muy jur ku nekk waaw kay. Mm-hmm. Euh, jubante ma sax. Mm-hmm. muy jur ku nekk. Mm-hmm. kon defe naa ñoo ko déggandoo. léegi foofu tamit li ma fi wax soxna jaar. Euh, gis nga soxna jaar bu su gis nga comparé bi may def am na artistes yu nekk fii di tëgg artistes yooyu ñu ngi seen forme mel ni mel boo leen gisee mel ne ay xale yu ndaw te seeni i sët sëy na ba ma seen i seen i sët sëy na su addisyee nga xam ne seen i sët sëy ñu romb foofu euh, addis yi ñuy mel ne xaaju pour ñoom ñu ngi soog a door kii moom def na li ko war bu yàgg ci 33 ans jóge fi euh, pour man la gis nga mag ak xale ak yooyu yëpp nekkul fa xam fan la nekk ci passif ak xam li nga bëgg soxna Jaara boo gisee ni at yi gàtte ci saa yi ak lim fi jëf nga xam ne juróom dootul fay mooy war ne liggéey rek am sol te gis nga àdduna bu naxante boo yoroon 4 millions di di jënd oto buy jar 5 millions ñëpp xam na ne 4 millions baax na mais duñ la ko jaay mënoo nangu tey par exemple soxna jaar gën la sonn ci jaamu yàlla nga bëgg son sëñ Muntaxa gën la sa sonn ci jaamu yàlla nga bëgg sëñ am son sëñ soñ bu gën la sonn ci jaamu yàlla nga bëgg sëñ Cheikh Saliou gën la sonn ci jàmm yàlla te bu ëllëg bu nekk àjjana bëggoon ñoom ñu nekk euh, cinquième étage nga nekk premier étage da ngay bëgg fan nekk ngay nekk bëggoon ñu gën la dara ba pare nangu ñu gën la sonn ci jàmm yàlla bi kon boobaa naxante day am nit ñi bu waaw da ngay nax xam fan jaar mënu mënu mel na ñoom parce que déjà ñoom roy ci ñoom comme ci ñoom comprendre léegi yow boo gisee nag ku bëgg lu yomb mooy loolu nanguwoo sonn te bëgg bëggoo kenn ëppale la lu baax moo tax ma ne la oto buy jar 4 millions 4 millions baax na mais duñ ko jaay oto buy jar 5 millions. nit ñi li nga góob xam nga am na ñu soxla xaalis banque yaa yaa ngi fi bari ñëpp xam na am na fa xaalis loolu moo tax kenn demul jëli xam na nga amuñu fa dara foo dentul dara boo fay jëli dara da ngay nax sa bopp kon euh, li naan biir yàlla mi def indi sa biiru bopp moom lu ci nekk jërul sonn dina ko ci def mais sa biir bàmmeel nag loo fa deful doo te nit ñi léegi amatuñ ca gis nga ku man di doon boo xëyee gaañu nit ñi seen soxlay ngoon dinañ ko doxi boo gaañoo ci ngoon bi seen soxlay suba dinañ ko doxi ci dëj yi nit ñi léegi dañ ci nekk di waxtaan ba naan dëj yi day am ceeb yu am ay mbaxal ak ay kéeg loolu dina ci am nit ñi amatuñ jotu ñaanal nit bu baax jëlutum maanaam dañ mën a muñ ku dee ko mën a nekk ci armée yi ne la ah waa ça va maa ñëw léegi waa xaar ma 15 heures ñëw du dara ci ñëw moo tax gis nga loo deful ci lu baax wala lu baax loo fi bàyyi mu di la jural aw yiw perte parce que nit ñi jot hmm. loolu moom ñu xam ko bu baax a baax waxtu leen dem mais a parce que yow exemple la bëgg na nga yëkkati ñu bàyyi du xasida nag yow lu baax rek ngay dox ah, jigéen exemple nga fu la neex nga tibb ñaar ñaari bàyyi da xam ne kii jàng na ba am bagam. mi ngi ci ah, léppam comme comme tey ñu ngi wax ci jigéen kay. Hmm. xanaa ñu parce que exemple bi ci jublu mooy bi nga waree jàngi nasaraan jàng nga ko ba àgg ci fi nga nekk te tëddoo di nelaw yaa ngi ciy sonn mais tréewul tamit sa wàllum diine dara manqué wul moo tax noo yëkkati rek ñoo xam ne jigéen exemple la loolu la si. مريم كلنا إن الذي لم يدرك كن فيكون لك حاد خير رسول الانتخاب وبي ذات امتحان ولم يكن بمشركين masha Allah kontaan nañ trop de yàlla yàlla la yàlla lafal cat lafal cat soxna Marème Fatima Samb soxna Awa Awa Diop ak tamit sëñ Dame Samb parce que àdduna la gis nga am na ñuy rey seen bopp pour di ñaan ay doom yu góor ak yu mel noonu mooy nii Papa Cheikh ak MCC Mohamed ak Diop mais gis nga jigéen bi man góor li lay doon am kilifa sa kilifa am kilifa parce que da ngay gis sodo Marème Samb madame ma <laughs> sëñ Moussa Ba ni koy nii gis nga ni sonne nga xam ne jigéen la boo xam ne que dem na àll ba Richard Toll accepté ko <laughs> dem université accepté ko tey mu dem sëy accepté ko jur doom ni méttee mu accepté ko ak yar wëlbati ko dem par yi nekk fa ay six mois accepté ko te ngeen jël voie boobu kon moo tax dama leen koy ñaanal mu àgg fu mu bëgg àgg ak yéen tamit tànk bi ngeen jël euh, bu mu ñàkk dara ci lu baax te bu ngeen ëppale dara lu baax yéen ngeen am ko parce que exemple boo xam na que bu ñu taxaw parce que damay wax naan léeg-léeg da ngay dégg ñu naan parce que d' accord Dakar la lu baax am na fi mooy erreur mais kër soxna Awa Diop kër daam sàmb diine am na fa yar am na fa exemple la boo xam ne que. ku ko waxul ci kaw yan ko wax ci suuf naw nañ seen yar daal kon yàlla li yàlla dafa cat aw jóg ak sëñ daam sax waaw te yàlla musal leen ci cat parce que li tax léegi a muslu ci cat euh, loo mën di def ci lu baax rek bul naaw parce que nit ñi gënoo gaaw ci sant la gërëm la mel ne yegg nga te tàmbali ko moo tax booy def tamit tiital te jàpp ne mbubi mën na jóge fu ne kii la moo tax parce que dëkk bi ñàkk sutura gis ngay euh, directeur école ñu leen indi li problème lu ne te loolu yàlla fi daal koo tax na di ñaan yàlla sutura bu sax ak li daal mujj gu nekk bu rafet jur daal kon daal na daal. amiin ñëw ak mère Soxna Samb ki mère euh, yaay Soxna Diop <laughs> ak la <laughs> a kontaan kon waa Tektal TV ah? lool. <laughs> Eh. waaw kon mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax defe naa ne liñ fi jot a wax yëpp waxtaan bu am solo la te incha allah di ngeen ci bàyyi xel. Euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax Cheikh Talif lañ doon dalal fii ci Tektal TV ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf.